merci beaucoup tension politique yi. waaw tension boobu lu ma ci mën a wax rek gis nga réew mi léegi dafa am ay changements yu bari yoo xamante ne bon tension yàgg na am ci réew mi. loolu moom ma ma lu ko parce que ku xam histoire du pays après même suñ ko fekkewul jàng nañ science politique jàng nañu xam na depuis Mamadou Dia jusqu'à nos jours ak Abdoulaye fu mu jaar amul lu ñu dundul ci réew mi ay mort des policier daan président ko wax nag moom mi accompagné Abdoulaye ñun ñi ànd ak Macky Sall ñi bëri ay doomu Abdoulaye lañ xam histoire xam nañu ay milliers de personnes yi périr kon tension mu yàgg na am fii ci réew mi mais par contre lu tax lan moo différencier le président Abdoulaye mhm. lu mu doon wax noonu il disait que je marcherai passer les cadavres pour accéder au pouvoir en réalité lu mu gëmoon ci xolam la ku xam Abdoulaye ànd na moom pratique da nga xam ne kii c'était un vrai démocrate malheureusement l'opposition actuelle c'est des gens yoo xam ne ils sont prêts à tout pour prendre le pouvoir gis nga njiit boo ko yoree réew boo ko yoree mm. daa am fooy toll même la wax dëgg même

des politiques publiques ñu tànn ci loolu nga xam am parcours mais léegi da nga gis des gens yu ñëw ay activistes certains ñi ay activistes la ñoon ñeneen ñi ay hauts fonctionnaires nga am benn problème boo am ak xaw ma foo ko mënti amee ñëw rek da léegi tu pouvoir léegi ñooñu xamuñu ne nguur euh, aussi bien au niveau du pouvoir que de l'opposition ku ne dafa war looy bàyyi euh, le grand professeur Serigne Mboup nous disait souvent bi ñu nekk à ne même le président de pouvoir dans l'état il a toujours des injustices mu ne je donne un euh, li ñuy wax Sénégal mu ne pour être électeur il faut avoir au minimum exemple 18 ans mais qu'est-ce qui dit que qu'est-ce qui fait war na am 18 ans war na voter ki am 17 ans warul voter xam nga loolu c'est des institutions loolu moo tax institutions yi nag moo tax pouvoir bi aussi mu war a am flexibilité parce que mënoo gérer le pouvoir avec toute sa rigueur sans autant du am ay po ay injustice au même moment pour le pouvoir aussi l'opposant am na yu bëri soo ko attaqué wala soo ko déroulé ba bëgg a ñëw au pouvoir fois nga ñëw au pouvoir am ay jafe-jafe parce que réew bi nga xam ne boo ko yàqee nga ñëw tey suba nga bëgg a ñëw exercer pouvoir comme ni mu ko Jibril waxee heureusement je salue son esprit dans ce nga ñëw ne ñu ne la le dialogue suñu waxtaanewulee tey code consensuel bi ñuy wax 92 loolu moo ko indi dialogue moo ko indi ñoom am nañuy d' accord am nañuy d' accord suñu demulee dialogue mais ay problème mooy am en réalité loolu bokk na li manqué opposition actuelle amatuñu ay expert électoral tey am na pays yu bëri yu nekk si code bi soo ci d' accord ngay dem ñu toog ñu waxtaan non actuellement ñi ma gis d'en face non ñi ma gis d'en face sincèrement parce que mën damaa la ko même bu ñu contre proposition pour ñu mën ko dindi comme tey boo jëlee l'élection du maire de Dakar au début pour nga être maire tey l'esprit c'est c'est faussé comme tey le cas de Barthélémy Dias tey l'esprit de c'est faussé ñàkk a voté pour mu nekk tey seen maire Amadou Moussa Kër il ne peut pas être leur maire Amadou Moussa Kër maanaam te loolu opposants yi am na yeneen ñoo waroon am vigilance taxaw ne fii ak fii ak fii lii dañ bëgg ñu waxtaanee ko au ngay ne aux indices candidat fit mm-hmm. non non laisse-moi terminer mais laisse mais dama la bëgg a xamal ne il y a yoo xamante ñoom man loolu laay xaar opposition ngay def des propositions constructives di xalaat loo xamante suñ ko defee ensemble on va la nation mais pas damay ñëw rek tey réew mi tey su ma jël le pouvoir fii yëpp la yëpp d'accord